اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله أبكارا شكري لرب كريم من غنى سكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا كتاب شكرا له قد رجوت به كوني سعيدا وسكرا وذكارا وجهت وجهي في سهر نبي سندي للأكرم رفيق وهابي زكارا ci nuyoob lislaam bi ñu sunu borom tànnal subhaanahu wa taala di am mbégte nag ci jataay bii nga xam ne ñu ngi koy seq ak yéen tam doon jataay boo xam ne jataayu fàttaliku ak ñaan la jëm ci jëmm joo xam ne dafa doonoon kenn ci njabootu sëriñ Touba muy sëriñ Massamba Kanni ñu nekk fi nag ci Daarul Xadim fii ci daara ji madrasatu min allahil mahfuz tey di bisub ñaan bi ñu di ko ci fàttaliku di ñaan sunu boroom defal ñu ci li mu diggee ci fàttaliku nit ku baax waaye di ñaan moom it sunu boroom jotali ko ci mbooleem ñaan yi ci barke Cheikhul di am mbégte nag ci jataay bi nga xam ne ñu ko seq ak bokk yi ñu ko àndal Tawfekh Production Tawfekh Production kon ñeent ñooñu la ñu àndal ci jataay bii nga xam ne ñu ngi koy am ci ci ndigalul nag fondation bi muy Fatxul naan ci benn tomb muy fàttaliku lan mooy cosaanul barab bi ñu nekk di Daarul Xadim Daarul Xadim ab gox la rek ci Touba ndax diggante pencum Daarul Xadim ak pencu pencum Touba buñ ko dee xool day tollu ci 7 kilomètres kon diggante bi sorewul ndax tuubaa day mel ne boo xoolee xibla gu nekk boo bàyyi ko ci jumaa ji danga daw lu mat 7 kilomètres yoo xam ne doo génn dëkk bi am na ci sa xibla yoo xam ne ëpp na lool daaru xadim nag da koo féetee wetu gànnaar boo jubloo penku boo taxawee jublu penku da koo féete wetu gànnaar ki ko sancoon sëriñ Masamba Kan ni la tudd loolu nag daanaka mën nañu ne xaw naa àgg ci dayob li ñu tuddee tawaatur ndax li ko nettali ci ay mag mbooloo la moo xam ne ku ne xam na ne mënuñoo mànkoo ci wax lu wérut ba ci doomi Sëriñ Tuubaa sax am na ci ñu ko daan nettali nga xam ne kon ci ndigalul Sëriñ Tuubaa la ko sancoon sanc bi nag wax na ni moom ak euh, Daaru Karim mi ngi ko féete sowwu ak Tindodi mi ngi ko féete penku ak Ndindi ma ngi ci penku Tindodi ñoom ñeent ñoo bokk benn bisub ndigal mu bàyyi ko ci Cheikhul Khadim ngir ñu sañ ci dëkk bii di Daaru Khadim loolu nag du sori 1913 1913 du sori foofu mi ngi sababoo yi ci sëriñ Massamba Kanni mii nga xam ne moo sañ ci Daaru Khadim ci la loolu sababoo bari na nag ay nettali ci nett nettali waaye man nag jëlee naa ci kenn ci doomi sëriñ Massamba Kanni yi muy sëriñ Ibrahima Bousso mu nettali mu nettali ma wax ne sëriñ Masamba xam nga moom naawel la feeñe jamono moom sëriñ Masamba Kanni dafa façon yéene delluwaat nag di ko dundal ci bay ak jàngale ak tërbiya bi mu fekkee sëriñ bi njaareem di ko ci laaj ndigal sëriñ bi ak di sàkku ci moom ñaan sëriñ bi laaj ko lu yitteem foofa mu xamal ko ne dafa bëgg a dellu di wéttali soxna sa muy soxna Asta ak di yar njaboot ga foofa ak di leen jàngal ak di fa liggéey maanaam di fa bay di mën a indi addiya wax nañ ni sëriñ bi ca la ko wooloo nag sëriñ ma sàmba Mbàkke sëriñ Muudu Moustapha sëriñ Fàllilu jox leen ndigalul ñu ñëw fii ci tuubaa dànd ko xibla gu nekk lu toll ci nangami kilomètre ca nattukaay yi ñu daan natt ci jamono booba sañ ci fi ay gox yoo xam ne daañu fa nekk di fa jàng di fa jàngale di fa yar njaboot gi di fa liggéey tegal leen ci nag ne bu sama jumaa ji àggee ngeen di fa jóge di julli si ajuma wax nañu dolli woon na ci sax ne leen su ngeen ko defee danaa leen warlul dugub dugub bi suuna ak ndox mu ñuul boobu la leen jox ndigal daal cee teg nag wax sëñ wax ma Masamba ne ko Masamba na nga xam ne tànk buñ liggéey ci sama dëkk bee di tuubaa moo ma gënal junni bu bàyyi ko feneen fu moom <clears throat> kon loolu liñ ci déggee rek mooy liggéey boo xam ne ni koy defee ci barab bii di Touba yàlla mën na ci def barke boo xam ne dërëm ba mën naa gën a barkeel junni buñ liggéey feneen fu dul Touba kon loolu moo sabab sanc yi sëñ Masamba ñëw sanc fii di Daaru Xadim sëñ Masamba Mbàkke sañc Daaru Karim eh, Cheikh Mouhamadul Moustapha sanc Tundóodi eh, sëñ Fàllilu sanc Ndindi ñeent dëkk yooyu nag dëkk bu ci nekk <coughs> soo taxawee ca pénc ma diggam ak péncum Touba du sori set kilomètres te dëkk boo ci taxawit di seen morom ma xëy na fi jamono toll nii nag ci dëkkuwaay yi tabax yeeg yi ci aju dem na ba loolu mën naa jafe waaye boo taxawaan daaru karim ci penc ma di seen daaru xadim boo taxawaan daaru xadim ci penc mi di seen tundoo di boo taxawaan tundoo di di seen ndindi loolu day tegtale rek nosu gu barab yooyu nosu te lépp mu tegu nag ci ndigalul cheikhul xadim ndax moo leen jox ndigalul sanc waaye wax leen it distance bi nga xam ne moom la ñuy la moom la ñuy soree Touba moom la koy dande ngir sañc kàddu googu mu leen ci tegaloon ci ne leen bu sama jumaa ji àggee ngeen dafa bàyyikoo di julli si wax nañ ne Cheikh Mouhamadul Fadilu ginnaaw bi liggéey jumaay Touba àggee daana def bu alxames jotee mu gonte tuubaa dem fanaani ndindi su xëyee julli si ngir màggal ndigal loolu nga xam ne moom la leen sëriñ bi joxoon ci ne bu sama jumaa ji àggee ngeen di fa bàyyi ko di julli si kon sañc bi ci ndigal la ko sëriñ ma sàmba Masamba ni sañce من الحق جاء الحق ولله بميزان balu xaq di leen baal xaq di jël ci siyaar bi jëruñu sëñ Tuubaa ji toog dend ak te sunu jëw ñu it mu yónni ñu ci moom ngir ñu jottali ko ay kaddu yoo xam ne kaddu yi kaddu yi cant rekk la kaddu yu ngërëm rekk la li waral loolu itam mooy li nga xam ne yàlla dogal na boole na leen muy toolub lislaam bii nga xam ne mooy toolub Serigne Touba Serigne Touba di jëwriñ ji ñu ànd ci àndin wu rafet ci lu yàgg ba bis bi am yeste yi ci jëf xam ne mooy jëf yu baax ya jëf yu rafet ya yesa ñu yes yeste yi ah, mbooloo mi fi teew ak ñi fi teewut ah, sëriñ bi dafa buñ di accès rek nan ko seeral na ko sant na ko gërëm na ko moom njaboot gi mu àndal ñëpp di liggéey sëñ Tuubaa liggéey seen maam mu liggéey bu mu lu di liggéey bu mu bàyyi xel di ñu mu bàyyi xel nag ndax seen yitte ak seen pas-pas ak seen rafetal ak seen tëye ak seen jàpp ko te rekk tax ak jëmmi sëriñ bi <laughs> waaw loolu rek moo ñu fendi woon mu boole woon ak suñ maam Mor mii di doom suñ si ab si moom it bokk ci jëriñu sëriñ bi ci ñi wettali sëriñ bi bàyyam eh, maamam nekkoon jëriñu sëriñ Bachirou ñu ko daan suñ Bil eh, wooy juróom sëñ Cheikh Abdou Say wutu ko nekk jëwriñ moom it mu topp mu ci tànk yooyee nekkaat ci peggu sëriñ bi ak kii nga xam ne mooy Lamp Ndiaye moom it sëñ Cheikh Ndiaye moom sëñ Bachirou moom lañ ko daan nekkoon jëwriñ sëñ Bachirou moom itam moom ñoom la ma boolee doon ngir rek ñëw fedd li wëlalu sëñ Tuubaa bi ak pas-pas bi ak feeñal yéeneem dellu ak cofeelam dolli jàppam ci njaboot gi nga xam ne lépp ak njabootam la sëñ bi di jëw di di di di jëwriñam te mat a te mat ko te mat sëkk jëwriñ te dox ko doxin wu rafet digg moom moom ci démb ak ci tey jii loolu rek mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy tànk yi sant na ko gërëm na ko xolam sedd na xelam dal na ci moom yaakaaram dal na ko ci moom mi ngi koy bàyyi xel te di ko wéttalikoo te di ko ñaanal liggéey bi suñu borom defal ko ci kaw ndam yu kawe ak ak ak ak ak ak nangu gu kawe ci barke Cheikhul Khadim <laughs> loolu rek la <laughs> ñu ngi lay. tuubal bu baax kàddu yi ñuy yëkkati ci kanamu sëriñ bi eh, te di la xamal ne noonu yi nga ko waxee fii li fi ne alali sëriñ bi la keneen amutub cër ci kër suñ Masamba Kanni ku dul suñ Tuubaa ndax lu mu doon sëriñ bee ko ko def sëñ bu mag bee ko jàngal bee ko sampal kër soxna si mu njëkk am sëñ bu bee ko sampal moo ko jox ca Ceyeen Jolof taawam ba mu ci njëkk am di sëriñ Maram Bousso sëñ bu mag bi la ko tuddee ka topp yi di sëñ Daam Bousso man moo jur sëñ bu mag bi la ko tuddee kon day mel ne moom kenn amul ci moom ab cër ku dul sëñ bu mag bi daarul xadim ji ci ndigalul sëñ bu mag bi la ko sancee 1913 booba mm, dafa jël aw jiwoom ñëw ba ci sëñ bi ne ko dama bëggoon nga ñaanal ma ci ma dem bay sëñ bi ne ko ren foo yëngoo pare yi mu ne ko damaa bëggoon a dem naaweel wéttali soxna sa waalo ndax moom naaweel la gane àddina moom sëñ ma Massamba Kanni sëñ bi ne ko loolu de baax na waaye nag li ma la bëgg a xamal mooy ab dërëm boo amee ci sama dëkk bee ca Touba moo gën ab junni boo amee àll ne ko dama bëgg nga wool ma sëñ Fallou ak sëñ Modou Moustapha ak sëñ Massamba Mbacké bi leen woowee ñu ñëw mu yebal sëñ Fallu mu dem sanc Ndindi sëñ Masamba sanc Tindoodi sëñ Masamba Mbàkke sanc Daarul Karim gi sëñ Masamba Kanni sanc Daarul Xaddim gi bi mu ko sancee it Daarul Xaddim la ko tuddee muy kër Sëriñ Tuubaa Daarul Xaddim daat koy taalife ak xasiida goo xam ne da arafi Daarul Xaddim la jël araf bu ci ne mu def ci aw bayit tàmbule ko ca daani rajaai li baaxil xadim karimin mujibin muridal xadim ilayhi xitaabi bi bi xutbil wara bi jaahi nabiyi rasuli naim ba xasida gi jeex mu mu mu mu mu gawe ko kër sëñ Tuubaa gi nga xam ne alali sëñ bi la kon mooy li ma lay wax rek ne la kenn amu fi cër ku dul Seex Mamadu taxa fii la gën a yilif ci ëttam bee waaw njaboot gi fi ne la gën a yilif ci njabootu boppam waaw nun alali sëñ Tuubaa lañ mënuñoo génn sëñ bi suñ maam sëñ Tuubaa ko créé suñuy wayjur sëñ Tuubaa ko créé ñun ci boppam sëñ mag bi moo nu créé kon ñun mënuñoo génn sëñ bi kóllëre gii nag dox ci diggante bi nga dox si ko lu yàgg la ci diggante kër gi ak sëñ bi ndax euh, euh, sëñ Maxtaar Kanni di doomi sëñ Masamba Kanni euh, rakk la ci wayjuru sëñ bi sëñ Maxtaar xaritub Cheikh Mouhamadul Muntaxa la woon way na ko ay bayit yoo xam ne sëñ Maxtaar mi ngi fi jóge 1984 su ma juumut wala 82 te lam wax ci sëñ Muntaxa jamonoy tey jii day mel ne buñ ko waxee danga nga naan ci 2023 bii lañ ko wax ndax dafa xool sëñ muntaxaa ba mu yàgg muy seede lim xam ci moom ne ko wala ma daarul muntaqa daaru tuqa man zaaraha laa yaltaqi maa yuttaqa daarun yurafrifu fawqaha alamul huda wa yasuuduha jawu saadati wan naqa waaye nag laa ayba fiiha eh, loolu mooy almadx bi ma yusbahu damm waaw tagg goo xam ne day mel ne da ngay ñi fekk da ngay tagg mu ngoog waaw daan ne kër mun taxaa daal kër la goo xam ne boo ko jubee la nga koy xàmmee mooy drapeau bi njub ngay seen muy faloote ca kaw biir kër sëñ Muntaxa ku juba di mënoo faane waaw ku juba di mënoo faane daan ne jaww jayit jaww jay tiim kër nga jaww ju set wecc la joo xam ne jaww yi jaww yi tedd nga la jaww yi texe la jaww yi bonheur la waaw daan ne jenn ayib daal laa gis kër sëñ taxaa muy ku fa dugg dootoo bëgg a génn laa ayba fiiha ka anna nizilaha yan sal an yàlla wala wala yurid si wal baqaa ku fa dugg rek da nga fàtte sa njaboot te dootoo fa bëgg a génn kon day mel ne loolu diggante kër sëñ Masamba Kanni gii la woon doomi sëñ Masamba Kanni ak Cheikh Mouhamadou Mountakha loola it nag ak taalibe rek ko laloon te mooy dox ba tey jii kon ñi ngi la koy seedeel te di la ko feddalil di la xamal ne njaboot gépp daal ak taalibe rek leen ñor sëriñ bi ci liggéey bi rek a leen ñor ndax sëriñ bi moom ak njub la woote xam-xam la woote te ci loolu lañ tënk ñu ngi sant bu baax ci turu sëñ bi gërëm bu baax a baax ci ngëm ak lislaam ji rafet ak njub mais ko tawfiq it ci xam-xam bu ma sëkk ak iraada sadiqa ak jëf ji rafet ju rëy jëm jëf ci kaw suuf laata mu fi jóge mu bari lu mu taxawa ci kaw suuf lool lool sax la ci gën a am solo mooy defar na ay nit bañ mat nañ war a mel bañ mel nañ war a mel mat lañ war a mat te loolu mooy li ëpp solo ci nit ki liggéey ci kaw suuf mooy defar doomu aadama loolu sax moo jur daara yi fi nekk ci barab bii ñu nekk moo jurit euh, li ngeen gis léegi nii ci penc muy jumaa ju mag ju ñuy liggéey joo xam ne nii euh, ñu ngi koy liggéey ci liggéey bu dëppook jamono jël na espace bu doy sëkk ndax jël na 40 mètres ci wàllu guddaay jël 30 mètres ci wàllu yaatuwaay ñu di ko liggéey ci liggéey bu am tawfiq bu am jàppandal ñu tegoon xeeroo daaw ba léegi mention boobu mi ngi ci yoon di dox dem ca kanam ñi nga xam ne nii ñoo ci barkeelu ci taalibe yi ak jullit ñi kenn ku nekk la nga mën yaa ngi ko ciy def muy buntu yiw di sadaqa jaariya boo xam ne nii ku yàlla dogal sa dërëm dem ca rafet la njort ne def nga ko fu mat a def jumaa jooju yaakaar naa ne jël ngeen ko ci biir seen li ngeen doon mu nekk fu barab barab boo xam ni stratégie fi mu placé dafa baax ndax juma ju mag jegewu ko ca placé na ci wàllu jege na tëli boot na lu yaatu yaatu lool ci ay quartier ci ci penku ci ndeyjoor ci ginnaaw ci euh, ci sow bi nga xam ne bu yàlla dogal mu àgg di mën a jël na nombre bare bari ci nit ñi espace bi mu nekkee di penc mu nekk di penc moo xam ne nii mu ràññiku la ci tawfiq moo xam ndax penc la mu yaatu lool deux cent mètres yu teg lu bari ci guddaay ak yaataay amee na ko yaakaar naa penc mu toll noonu gisuma ko ci Touba mu yaatu la trois cent mètres maa ngi ci guddaay bi ak yaataay bi loolu kon lu am tawfiq la kon nga xam ne am na làq na daal tawfiq joo xam ni ju kawe la njortu njaboot gépp nag ànd ci ci kilifte bu xalifa bi sañ Fallou ci mbuleen ñi koy doxal di ko liggéey ñi talal loxo bépp jullit bu bëgg lu baax bëgg liggéeyal boromam bëgg dawal bàmmeelam dara mu tàbbal aw ñaqam ci jumaa ji ndax rafet njot la incha allah taala lu ci waay joxe incha allah dana dem ci biir jumaa ji loolu ñu ngi koy xamal di ko yëgal mbokk jullit yëpp incha allah taala waaye dañ koy liggéey par ajuma étape par ajuma ba ajuma la boobu lañ koy liggéey waaye amuñu ci taxawaay benn yoon ajuma bu jot rek ñoo ngi fi ànd ak taalibe yëpp rek waaye fi mu toll nii nag ci cinq rang rek la toll fondation bi yegg na mu des dalaas ci biir ak yëkkati mu jëm kaw wax dëgg yàlla demagul fen dugg na deux mètres cinquante nag ci suuf ci fondation waaye fi mu toll nii wax dëgg yàlla euh, ñu ngi toll ci ay cinq rek ak teg seenage di tabax jóg ci lañ toll. mi nga xam ne moom la ñuy def ci mbokk taalibi jumaa ji itam mooy euh, ñuy soññ mbooleem mbokki taalibi yëpp rek ku nekk ci biir ak biti réew mi foofu waaye man di nekk rek góor ak jigéen maa nga ndaw ci liggéey jumaa ji nga xam ne mooy suñu liggéey. ci eh, li nga xam ne mooy eh, eh, ay sëñ Fallou Mbacke sëñ Fallou Bousso gi mbooleem taalu bi nag sëriñ bi dafa joxe ndigal ci képp koo xam ne kii yaa ngi yaakaar sëñ Massamba Kanni Bousso jox na la ci ndigal nga di ci jëf ci sa doole waaye di ci jëf itam ci li nga xam ne mooy saw ñaq soñi sama mbokki moolkat yi nga xam ne ñoo yàlla war yàllu birig wàllu birig yi ñun par birig doom birig lan féetu man ci jiite mool yi par ajuma nag lan koy xëy maa ngi soñi sama mbokki taalibe yi góor ak ñu fi man ñëpp ak ku mënu daal ñu ngi lay soññ ci ajjuma yu jot ñu ñëw ci liggéey sëñ bi ngir yàlla gémmi Xaadimu Rasuul ñii sëñ Fallu taxawee ci jumaa ji noonu lañ tabaxee jumaay Tuubaa ji mooy woo taalibe yi fexe kenn ku nekk def ci aw ñaqam ak am xelam ak ay xalaatam ak ay yëngoom yëpp ba jumaa ji toll fii mu toll bi nga xamante ne dem na ba nga xamante ne euh, bu liggéey bi lu mu laaj tey bu ñu liggéeyee ci ajjuma ji tey ba war a wàcc liggéey bi lu mu laaj ci matériel taalibe yi dañuy xam ne lii laaj na ko ñu jaayante ko bokk na ci ay sersin bokk na ci ay gamaat bokk na ca ay ay peel lépp loo xamante ne bokk manqué na wala war a téye bi rek taalibe yi xam loolu rek dañuy fas yéene balaa ajjuma ji ñu war a jëm delsiwaat taalibe yi jaayante luñ mën a amee loolu kon loolu nag la ñuy woo bépp mbokkum taalibe wala dëkkandoo wala képp koo xamante ne jot nga ci message bi nga ñëw fekk fekk si ñu ci lii ndax lii moom sëñ Fallu da ko joxe ndigal pour ñëpp jariñu moom ajuwut ci taalibe yi bépp jullit la la wax képp ku euh, euh, bëggu yiw daal fekk si ñu ci liggéey bi yaa di ñaan suñu borom yàlla dimbale nu ban àggale ko jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim wa ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi di am mbégte rek bis bi màgg bi ñu nekk muy bisu fàttaliku sunu jàmbaar ji Cheikh Massamba Kanni di sant itam mbooleem wóllëri teew si yëpp ci jataay bi ak mboolem mbokk yi xam ne teew si nañ ci ak ñi amoon yéene teew ca suñu borom dogalu ko di sant itam taalibe yëpp di wax ne rek bis bi ndey bis bu màgg lool bis bu am solo ndax dañ ciy fàttaliku ku mat a fàttaliku muy sëñ Massamba Kane sëñ Massamba Kane nag xam le ko daanaka yàgg na luñ koy jàllale ci jataay yi xam naa ne ñu bari xam nañ ngir gàttal rek ak njëkkalante di wax ne daal doomi sëriñ Bousso bi la doy na sëkk ci ab xable ñu mën koo xam di doomi soxna Kandi Mbàkke dox ne doy na sëkk itam ci mën koo xamle waaye rek nekkoon nag taalibe sëriñ tubaa tey jii nag ñu nekk ci dëkkam bii di Daarul Xadim di ko ci fàttali ko ngir ngërëm lu mu amoon ci Serigne Touba ak itam tawfiix yoo xam amoon na ci Serigne tubaa yoo xam ne nii ak jege ko ak nanguloon ko ak déggaloon ko ak toppoon ko moo ko mayoon la mu am bis bi lii sabab bi mooy keroog guddi gàmm ga Sëriñ Tuubaa woye woon wan ko rasulullahi sallallahu alayhi wa mu bokk ak moom mu ñetteel leen ci am néeg ci guddi xaajee ba ca fajar ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam door a tàggatoo ak Seexul Xadiim bis boobee la ñuy tey jii di ñaan mbooleem loo amoon ko ci ay ngërëm rek suñ borom defal ñu ci ñantam ñu am ca lu foo ko suñu njort ñun xanaa di wax ne rek Cheikh Mouhamadul Fadal mi xëy moo ko fi nekkal tey di ko ñaanal suñu borom àggale ay naalam ak i mbébétam ak i yéeneem ci taxawaayam yu rafet yi nga xam mi koy am. lu ci mel ne dëkkam bii nga xam ne Serigne Touba moo ko fi joxoon ndigal mu sañc ko ci dëkk bi tey ku fi ñëw danga xam ne na mu meloon bu njëkk ak fii mu agsi tey am na ak soppi ko lool lool lool bis bi itam nañ ko daan tàmbalee. ak fii mu toll tey ko fi ñëw da nga xam ne am na ak wuute lool ak yokk gu mag a mag am na fi loolee waraloon sëriñ Mouhamadul Fadal sumbaloon na fi sëriñ Massamba Kanni ci liggéeyu sëriñ Touba yi benn ci liggéey yi muy daara ju mag ak jumaa ju mag mi ngi fii ci penc mi daaw la ñu tegoon xeer wi ku fi dikk daaw ak ren da xam ne liggéey bi yitteel na ko waaye itam fonk na ko lool te ñor na ko waaye nag noonu la ko ànd ak njaboot gi yëpp ak mbooleem jullit yëpp wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada néeg boobu ab néegam ab néegam la bokk ko kenn te tabaxuñ ko yit ngir kenn ku dul moom mu teg ci loxo ba niñ yéene mu mel ni mu mel nu kawe njort ndax néeg la boo xam ne des ko songe pas-pas waaye du loo xam ne dañ ko dajale ba mu yem ngeen ñu di ko tabax waaye nag ginnaaw suñu borom nee woon na ku dox jëm si ci man ma dox jëm si ci yow ku ku daw ku waaxu jëm si ci man ma daw gàttandu la ñi ngi soññ suñ bopp di soññi njaboot gi di soññi waa kër gi yëpp ak bépp soppe boo xam ne mi ñuy dégg bépp jullit ñu àndandoo daw wuti sunu borom ci néeg boobu ngir mu gàttanduñu ba néeg bi àgg ba mel nu raw na nga xam ne noonu lañ ko bëggee tam doon néeg boo xam ne daañu ci yàgg a jaamu sunu borom te sunu na nangul ñu jaamu yooyu. kon daal euh, barab bi moom barab la boo xam ne euh, mooy sanc yi Sëriñ Tuubaa daan sanc boo demee la nga fa daan fekk nga fi fekk mooy ay taali jàng. ay jàkka ay néegi yàlla fu ñuy yare fu ñuy jàngalee ak ay barab barabi liggéeyukaay ñoo xam ne buñ xëyee dem ca tool ya ñi buñ xëyee ne ca njàng ma ñi buñ xëyee ne ca njàngaleem xam-xam ma bu waxtu julli jotee ñu dem ci néegub yàlla ba joxe ji ko kon loolu mooy sancub daaru xadim bii eh, di barab boo xam ne nag eh, bokk na ci barab yi gën a eh, tànneefe ci dëkk bi jamono ji ñu toll ndax yàlla dimbali leen jafe-jafe yu bari mucc nañ ci kon nag li ñuy ñaan rek mooy lépp lu ëpp di soxla lépp lu dëkk di soxla yàlla na ko sunu borom euh, xéewale dëkk bi di Daaru Xadim waaye lépp lu ab dëkk di bañ yàlla na ko sunu borom musal projet boobu nga xam ne mooy projet Fawzeyni bi sëriñ bi doon ñaan ci Touba gi bi mu koy sanc ñu ngi ñaan barke boobee yàlla na ko yàlla wàcc ci dëkk bii di Daaru Xadim waaye jëmmi qualité doomu aadama bi nga xam ne it maanaam tibu nit ki nga xam ne moom la sëriñ bi bëggoon ci Touba te boo demee ci mm, la chifa yi mën ko caa fekk ñu ngi ñaan nit ñu mel noonu it yàlla na leen yàlla dëkkale ci dëkk bi nga xam ne mooy Daaru Xadim kon ñi ngi sant bokk yi nga xam ne it ñoo sàkk woon ñu yëkkati kàddu yi ci kanam bokk yi nga xam ne ñoom lañ jàkkaarlool muy As-Samadiyya TV naka noonu Rafaa'i Rafa TV naka noonu euh, Tawfiq TV naka noonu it Mbacke Kajoor TV kon yooyu mooy jumtukaay yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon yéen ñi ngi leen di sant di leen gërëm